barab bu ñuy gàmmoo bu nekk mu dolli leen ko ca lañ daan def ñu di ko ci ñaanal ci loolu yàlla na yàlla guddal aw fanam te rafetal ab liggéeyam ba ba mi fekk ci ñu Tuuba ak mu ba ñun nag ñu doon ci yëngatu ba jàngoon ñaar fukki kaamil ak ñaar ak ñaar tey ñu koy jàng juróom-ñetti kaamil mottali liggéey bi ba seen ñu jàng xatmu bi di ñaan mu bi képp ku fi nekk nga fas seen am ci fajub aajo am ci defarum bir am ci mucc am ci mucc leen am ci ubbeeku ñu fas seen jàng fatnu bi